yi ñuy wax ak yéen askan wa tàbbiwaat nañu ci ay mbënd di inondation yu metti gox yu bëree ngi ci biir ndox jamono gi eh, tembe la fa yàqu it ci ay bagages bëri na lool yoon yu bëri dagg na yi fi jural askan wi ay loraange ci seen wàllu dem ak dikk leeral yi ci ndox bi bila jotaay xibaar lay doon. daañu àddit jëmale si ñàkku kaaraange gu doy waar gi askanu kamb nekk sa banlieue bu ndakaaru di jooy fi mu tollu tembe nee nañ daal samba boo yi ñoo leen sonalu huit sa fa féeteek forêt classée bu mbaaw foofu daal buñ fa jaaree dañ leen di faral di dogaale di nangu rek seeni alal yenn saay sax ñu leen di gaañ loole waral daal ñuy euh, sàkk wàllu si kilifa yi jiite réewu senegal xibaaru biti réew ñaareelu tuuru élection législative sa réew France ñu ko doon amal tey jii si dibeer gi bu ñu sukkandikoo nag si waa ISPOS talent nee nañ jamono gi tembe daal waa Front Populaire nekk gauche ñoom ñoo jëlagum raw gàddu gi sa yooyu la jongante ndax am nañ si lu tollook téeméer ak juróom-ñaar fukk ñaar jàpp téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar si ay député sa seen pencum ndaw réew loole moo rotagum si lu ñeel yooyu la législative mbokk jotaay xibaaru marax yi neskis ñu ñëw ak yéen si gi. ni ma leen ko junjee léegi ci bopp xibaar yi ay taw yu bari moo wadd tey ji ci dibeer gi ci suba. ci ay gox yu bëri ci réewu Sénégal fu mel ni Ndakaaru waaye nag euh, Kaolack ak Touba la mu fa yàq euh, bëri na ndax fi ñuy waxee yéen askan wa tàbbiwaat nañu ci ay inondation di mbënd yu doywaar gox yu bëri ngi ci biir ndox jamono gi tembe la fa yàqu it ci ay bagage yëf yi bëri na lool ba jéggi dayoo fu mel ni nag euh, Touba jàpp leen ni ay yoon yu bëri euh, dagg na ba otoog saret sax mënatu fa jaar ndax ndox bu euh, bëri lu ni mel nag jural askan wi ay lorange si seen wàllu dem ak dikk Touba goge si fàttali si atum 2023 nguur gi fi nekkoon dugaloon na si wàllu mbënd mi lu toll si ñeent fukki milliards si suñuy koppar doon rek defar ouvrage yi nga xam ne nii euh, amal nañ ko foofee sa Touba Mbàkke lépp ngir xeex rek yooyu la inondation doon defaraat canal yeeg ñoomin seen waaye yi wadd si waxtu yi ñu génn ak lam fa yàq day firndeel daal ni loolu ñu fa jot a def résultat yi taxu ko demee noonu daañu si ñëw si nu mu gën a yaatoo si suñu yeneen i jotaayi xibaar junj naa leen ko it léegi si bopp xibaar yi askan ba yeewoo sa gox bi di kamb nekk sa banlieue bu ndakaaru jamono gi daal li ñuy jooy mooy insécurité di ñàkku kaaraange gu doy waar sàmbaabo yi daal ñoo leen sonal witt fi mu tollu tembe nee nañ daal dañ leen di kar safa dendek euh, àllu mbaaw gi di nangu seeni bagage yenn saay sax dañ leen di gaañ su weesoo it ñàkku kaaraange googe askanu kamb leneen a ngi nii lu leen sonal muy wàllum assainissement set ak cell ak nawet bi nga xam ne yegg si na ba noppi la ñuy ragal rek mooy jànkonteel waate ki inondation di mbënd ba tax rek ñuy sàkk wallu ci kilifa yu yees yi jiite réew Sénégal tali bi nekk en chantier mu ngi nekk diggante foore bu mbaaw Kër Mbay Fall ak Kër Massar population Kamb extension ñoo initié ngir defar tali bi ngir am accessibilité waaye bërëb bi dafa nekk localité boo xamante ne defkat ñaawteef yi da leen fi sonal. ñii nii ñu ñoo initié pour euh, réparer tali bi parce que lu tax ñu bëgg a defaraat suñu tali bi tali bi dafa bëri agression dafa bëri agression suivi de euh, viol tali bi aussi lu ñu enclave bi depuis euh, autoroute à péage bu mu amee ba tey ñun on a tous les problèmes du monde am nañ fi problème l'insécurité am nañu fi problème tamit agression boo xamante ne waa ji ci biir këram lañ ko fekk ñu rey ko. yeneen problème daldi ci rax askan wi nag di ñaan nguur gi ñu jàppale leen ci wàllu wér yaram ci wàllu njàng mi ak yeneen. appel ministre de la santé mi nga xam ne moom moo yor wér yaram xam ne moom moo doy waar moom mooy habitant kam extension yi ñoom ñooy recevoir bassin de rétention yi jógee Kër Massar ak environnant waaw léegi. ñun nan la ñu mën a recevoir bassin extension yi ba pare ñun ñu am ay problème assainissement. mooy école pour xale yi moom mooy C1 e, lycée pour ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a mag moom mooy hôpital wala centre de santé wala poste de santé poste de santé du ma ko bëgg di wax ndax poste de santé moom moo gën a tuuti ci période mi sanitaire bi donc. leneen i tamit ca Kamba extension dañoo am jafe-jafe réseau d'assainissement ak évacuation des eaux pluviales. ba tey si li soxal xibaaru euh, marax yi ñaar fukk ak ñeenteelu édition rencontres économiques yu Aix-Provence sa réewu France doon nañ ko amal si teewaayu ki fi nekkoon njiitu réew di Macky Sall moo Macky Sall nag ba mu yëkkatee ay kàddu la muy sàkku rek mooy ñu dooleel dendu Afrique ñeel wàllu financement ndax jàpp na ni daal bu ñu bëggee jàppale Afrique ba mu soqale ko si wàllu koom faaw rek ñu yokk bu baax a baax koppar yi nga xam ne dañ leen koy dimbalee moom mi fi nekkoon njiitu réew di Macky Sall yemul foofee

li xew jamono ji euh, mën naa wax ni ñun ñëpp la daal di yi ay ndaw di jël gaal gi di génn réew mi di dem ñi ëpp si ñoom di si ñàkk seen i bakkan nekkoon naa njiiti réew dañuy gis sax ñi nga xamante ne nii am nañ seen i liggéey dañ ko fay daal di bàyyi dem jël gaal gi ngir rek daal di dem Europe Macky Sall dellu si na itam ci jéego yi nga xam ne teg nañ ko ngir dakkal phénomène boobu nga xam ne mu ngi gën a woy ci Afrique. nekkul lu yomb benn yoon ñu ngi def luñ mën ngir rek daal di xeex li ni mel ñu ngi ciy liggéey di ci boole waale ñi nga xamante ne ñi ñoom ñooy marine nationale bi gendarmerie teritoriale bi teg si tamit dañuy daal di financer ay ndaw ngir rek ñu daal di mën a amal seen bopp. ci ndaje boobu nag moom mi nga xam ne moo nekk envoyé spécial pacte de Paris pour les la Afrique mën a jot ci ay financement ngir mën a suqaliku. mais l'Afrique fépp. ñu ngi amal ay jéego yu bëree bari fii ci Afrique. dafa daal di soxla ndimbal ngir rek mu daal di mënal boppam assurer li nga xamante ne ni moom mooy euh, développement am te mel bu daal am euh, jàpp naa ni àdduna bi yëpp moo si daal di njëriñu. loolee sax bokk na ci mission yi nga xam ne am na ko ci kuréel boobu. maanaam fexe ba lëkkaloo am ci diggante réew yi rawatina ci diggante noor bi ak sud bi. man li may indi mooy kàddu ci wàllum politique. mu war a nekk nag kàddu koo xam ne ci sud bi la jógee war a ëndaale itam kàddu képp koo xam ne yaa ngi ci sud bi li suñu mbëbët mooy fexe ba dialogue bi am ci diggante réew yi nga xam ni multilatéralisme bi ñuy woote dina nekk lu dëggu ki fi nekkoon jiitu réew nag jàpp na ni Afrique waratul nekk reservoir ressource naturelle boo xam ne réewu tubaab yi dañuy ñëw rek di tibb li mu soxla rek mooy ay financement ngir mën a suqaliku lii di xibaar si tënk ñeel ba tey immigration clandestine tey ji am na ab gaal gu teer sa waaxi Espagne sa île canarienne bi di El Hierro bu ñu sukkandikoo rek si waa centre de coordination des urgences et de la sécurité bu gouvernement de Canaries nee gaal googee nag yaboon na si lu tollook téeméeri doomu aadama ak juróom fukk ak juróom-ñaar bokk na si ñoom lu tollook ñaar fukki soxna ak ñeent ak fukki tuut ak ñeent it ñoom ñëpp bawoo fii si tamit ñoo ngi xamal it ni euh, sa soxna yooyee am na sax ku si ñàkk bakkanam si biir géej waa Croix-Rouge it euh, fësal nañu ay xibaar ñeel wàll gi ba tey ndax nee nañ ñett si doomu aadama ya nekkoon sa gaal googee dañu wàcc waale rek ak ay tawat ba jamono gi tembe ñoo ngi leen yóbbu sa hôpital bu Los Reyes di leen fa faj foofe sa réewu Espagne ñeenti fan gannaaw bi ab euh, gaal gu yeboon ni euh, migrant yu bawoo fii si dendu Afrique euh, suuxee rek sa waax yu Mauritanie ñoom ñooñee nag doon jéem a rek utali réewu Espagne jaaree ko si biir géej gi limaanu jëwri ñi di Ousmane Sonko ni ki ba mu demee doon rek seeti ji étudiant ya nekk sa université Gaston Berger bu Saint-Louis ba mu yëkkati ay kàddu nag naxarlu na bu baax a baax phénomène émigration clandestine gi moom daal la muy soñu ndaw ñi mooy fii si mim réew liggéey fi tekki fi tedd fi dimbali seen bopp dimbali it seeni njaboot. mu nekk ab message espoir l'avenir du monde est en Afrique lii di ay kàddu premier ministre Ousmane Sonko ay fan ginnaaw bu ay ndaw ñàkkee seeni bakkan si ab bu suux foofee ca Mauritanie mu nekkoon ay ndaw yu bëggoon dem foofee ca Espagne Ousmane Sonko daal di rek nakarlu bile mbir. te nag mu woo ndaw ñi ñu toog fii ci Afrique mu mel ni nag ku leen di encourager ñu entreprendre mu daal di xam ne ni que solution bi du liggéey ci biir bureau yi mu daal di ci teg naan réew Europe yu bari yi nga xamante ni yile ndaw bëgg nañ fa dem jamono ji dañoo nekk ci crise wala sax dañoo jëm ci crise mu daal di xam ne ni que jamono ji Afrique mooy benn continent bi nga xamante ne dafa nekk ci yoonu yokkute te nag mu xam ne ni que bi yokkute mul rekk cent africains yi rawatina ñi di ndaw ñi si bilee gaal bu suur nag lu jóge juróom-ñeenti fukki nit ñoo si daal di ñàkk seeni bakkan bato bi nag daal di jóge foofee ca Niodior ci frontière Sénégal ak Gambie mu amul lu toll si téeméer ak juróom-ñaari fukki passager ñoom ñëpp nag bëggoon dem foofee ca Espagne si rescapé yi nag ñu daal di ci fekk benn xale bu jigéen bu am juróomi at. Dieynaba Omar Sow elimaanu jëwriñ yi di Ousmane Sonko niki démb nekkoon foofee sa ndarge ca doon jiite rek liggéey yañ fa doon amal ñeel bëccëgu set setal national bi ñu doon amal si Sénégal gi wërgal këpp moom Ousmane Sonko yëkkati na nag ay kàddu jagleel ko directeur général bu ONAS li mu daal sàkku si moom mooy mun na sopp rapport boo xam ne dafay andi rek ay leeral si juróom benn fukki milliards suñu koppar yi ne dañ ko dugal si tabaxum ab benn station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 Ndar Géej wutali rek diwaanu Fatick ni ngeen ko xamee fan yi ñu génn lakk gu metti moo fa am nag euh, yëf ya xewee sa marché central bu Fatick la fa yàqu it euh, bëri lool ba jéggi dayoo maire bu commune ba di Matar Ba sol na dàllam dem rek massawu ji ñi nga xam ne ñoo loru si mbir mi demeewu fa nag loxoy neen ndax dig na leen ni dana leen jëkleel lu tolloo lu tollook fukki million si suñu koppar Matar Ba yemul foofee it ndax xam la xam na ne ni da balaa yàgg daañu fa amalub euh, opération de désencombrement sàkku teef bi lu leen lu dul jaarale mbiri si yoon foofee sa marché central bu Fatick. gannaaw lakk bi amoon ci marché central bu Fatick maire bu bokk moomeel gi xëy na def fa ak doxuk saytu ngir mastaw yi la jaaykat tey dañu ñëwoon di xool si ndog bi nga xam ne am na ci marché central bi bi nga xamante ne xew na ba sapeur jóg ci préfet jóg ci mairie bi jóg ci waa Fatick yëpp jóg ci ñëw taxawu ñi lakkale ba dalal leen ba defal leen ba métit gi wàññeeku ci ñoom parce que ñëpp xam nañ ne liggéey sa alal ba mu toll nii di ko xool muy lakk ba jeex neexul yàlla que ñi mu dal seen kaw wane nañ ñi ngëm yàlla bu mat sëkk. ci bile ndaje assise nationale daal di fay teew yëkkati ay kàddu jëmale ko ci nguur gi ak ñi ngànk bokk moomeel gi ngir ñu gën a jooyanti melokaanu marché yi ak nekkinu jaaykat yi. tey képp ku dugg ci marché bi visité ko rek war ngaa xam ne marché warul mel nii kon war nañ mën a jéem a moderniser marché yi ndax ku ne xam na ni marché dafa soxla police boo xam ne mooy jubanti nit ñu leen teg ci yoon loolu waral kuréel liñ mën ñuy dajale lu ci mel ni assise ànd ak délégué defaral suñu marché képp koo xam ne am nga cantine ñu ne la sa cantine fii nga yem bépp doxandeem bu jógee feneen ñëw bëgg a occupé mbedd mi ñoo xamante ne la ah lii ci droit loolu nag commerçant bi moom moo koy def waaye autorité bi moom moo jël responsabilité boobu jàpp nañu loolu bu amee ànd ak modernisation marché yi nga xam ne état lancé na ko mu promosé moom mu jàppale maire yi aussi ci projet boobu mu doon loo xam ne du diire jiyee ji metti lool waaral bokk moomeel bu Fatick fas yéene yëkkati ndàmpaay lu toll ci fukki million jagleel ko ñu loru ci bile lakk mairie bi bi ñu ñëwee waxtaan ak ñoom moo tax ñu jël fukki million wara koo jox ñi nga xamante ne ñooy fukki nit ñi ak ñeent ñi nga xamante ne ñoom la seeni i cantine wala seen i lakk ba jeex loolu nag ndimbal la bu jógee ci mairie bi. jëm ci askan wi te xam ne li ñu def ci ñoom it xaalisu askan wi la. maire bu commune bu Fatick di xamle ne ñu ngi ci tànki tabaxaat marché bu bees waaye balaa boobee daan def seen kéem kàttan ngir gën a ñoŋal marché central bu Fatick. xibaaru gu yaram si bile jotaayu xibaar jàpp leen ni balaa yàgg daañu tàmbali rek di opérer feebar yi nga xam ne dafay laal peru bët sa hôpital dalal jàmm bu géejawaay kilifa yi jiite bërëbu fajukaay ba ñoom ñoo ko xamle laata boobu nag yeesal nañ bu baax a baax jumtukaay yi nga xam ne dañu ko doon jëfandikoo ngir opérer rek lii di cataracte mu di nag mbir moo xam ne askan wa kontaan nañ si lool ndax nekk na loo xam ne dañu ko soxla woon dañuy teelu kàddu euh, médecin chef bu hôpital dalal jàmm di docteur Moussa Daf si micro Bakary Cissé mais ñun li ñu jàpp mooy que euh, xam-xam du doy te xam-xam fu mu ne rek war nañ ko jëli indi ko parce que ñi nga ñun ñii sénégalais mérité nañu am xam-xam bi nga xam ne moo gën a mucc ayib ci wàllu santé moo tax tey jii nii bi ñu indee suñu xarit yi ñu ne duñu ñu yam rek ci ophtalmo yi nga xam ne ñoo nekk suñu hôpital il faut que ñu invité yeneen ophtalmologue ñoom it ñu ñëw profité ci bénéficier ci ba nga xam ne ëllëg ak si biir ñoom ci seen bopp dinañ ko mën a pratiquer bu fekkee ne jumtukaay yi wax dëgg yàlla euh, euh, yemb na teew na. te dàquñu bu ñu paree formation bi maanaam liggéey en réseau xool naka la ñu war a mën a def ba képp koo xam ne rek ophtalmologue moo xam nga nekk Tamba Ziguinchor Ndioum Saint-Louis naka la ñu war a mën a def. pour que nga dugg ci réseau boobu pour mën a gën a sàkku xam-xam dëgg la mais également pour gën a mën a am jumtukaay yoo xam ne fa nga nekk di liggéey sénégalais ya fa nekk dinañ ci dinañ ciy bénéficier wu. si wàllu wér gu yaram sax lañuy des euh, ba tey àddu rek jëmale si lu doy waa li xew jamono gi si hôpital bu Bambey mu di rek ay soxna yoo xam ne ni seen ëmb dafay yàqu nee nañ daal si weeru juin gi ñu weesu.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 phénoménal euh, Kara gén phénoménal général Kara mooy rek euh, turu téere bi nga xam ne euh, soxna Dieng Mbacke di soxna si sëñ Modou Kara bind na ko mu di téere goo xam ne nag dafa rek dikkaat si jaar-jaaru sëriñ Modou Kara ni ki démb si gaaw gi lañ doon amal cérémonie dédicace boobu di téere si teewaay kilifa yu bëri yu nekk si langue politique yi ak it si kër diine yi dañuy teelu nettali gi ak Moussa mbooloo bu takkoo takku moo daal di ñëw fekkee bile cérémonie ay taalibe homme politique wala sax acteur société civile ñëwoon fii ci grand théâtre tey nekkoon cérémonie dédicace livre bi ñu tuddee phénomène général Kara livre bi di dellu si bu baax a baax si jaar-jaaram di ko bind di soxna Jee Mbàkke bind nag ci ku mel ndax euh, dafa am ay melokaan yu bokkul Euh, yàlla daf ko defal tamit mu nekk koo xam ne euh, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul rek mooy itam. bile livre mu tàmbali ko bind ci atum 2020 ñeenti at a ngi nii mu nekk di ci liggéey ngir rekk daal di xamle waat bu baax a baax ana kan mooy Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni lim jàpp mooy nit ñi dañ koo desee xam ba léegi. may nettali euh, ay xew ci ci àddinaam bi mu nekkee tout tànk bi mu doonee mag bi mu doonee xalifa Cheikh Ousmane Mbacké Noreyni Mathia Beyti euh, noonu daal laa ko bindee. moom mi lay doon soxna si Serigne Modou Kara Mbacké tax na muy xamle ni yombul benn yoon daal di bind ci sa boroom kër wante tamit dellu si waat ci ki nga xamante ni nii dafa nekk rek benn guide bu multidimensionnel. ah diggante bi de peut que su rataxul woon neexul woon. mën naa am dama bind ci moom. Mhm. waaye wax dëgg yàlla nit ku baax la nit ku yaatu la. nit ku jaboote ñëpp. Mhm. Euh, koo xam ne xol bi dafa weex tal tal tal tal. Mhm. xam ne ñëpp la yéene lu baax. Euh, te lépp daal ku ko bëgg jàppale daal jàppale ko ci jërëjëf sëñ Touba. dañuy jeexale ak xibaaru biti réew si tënk tàmbale kook euh, juróom-ñaar fukk ak euh, juróomeelu sommet bu communauté économique des états de l' Afrique de l'Ouest di CEDEAO ñu koy amal tey jii si dibeer gi yem ak juróom-ñaari fan si weeru juillet atum 2024 sa Abuja sa Nigéria bokk na si li nga xam ne ni nag euh, kilifay réew yi CEDEAO waxtaane nañ ko mooy rek wàllum koom ñeel réew yi lëkkaloo si keppaaru CEDEAO càmbar dinañ càmbar tamit la nga xam ne moo jot si conseil sage bu CEDEAO ñoom ñi nga xam ne jamono gi seen bëgg-bëgg du lenn lu dul fexe rek ba Mali Niger ak Burkina Faso ñoom ñi nga xam ne dañoo woon gannaaw CEDEAO ñëwaat rek dugg si bile keppaar ñetti réew yooyu di ngeen koo xamee lëkkaloo nañu si ab alliance bu ñu duppee alliance des états du Sahel AES nit ki démb lañ doon amal seen sommet mu nekk ndaje gu njëkk gu ñu sekk ñoom ñetti réew yooyee yi fi doon am démb ci gaaw gi sa ñaareelu tuuru élection législative yi doon am tey ji sa réew France bu ñu sukkandikoo si waa ISPOS Talent nee nañ daal nouveau front populaire féete gauche ñoom ñoo jël raw gàddu gi ñeel yooyu lay jongante ndax am nañ si lu tollook euh, téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar jàpp téeméer juróom ñeent fukk ak ñaar yi député sa assemblée nationale waaye nag amuñu lii di majorité absolue maanaam daal leen tekkaleek yeneen parti yi nga xam ne ñoom lañ doon jàmmaarloo taxu ko bëri noonu camp bu Emmanuel Emmanuel Macron ñoom am nañ si lu tolloog euh, téeméer ak juróom fukk jàpp téeméer ak ñaar fukki euh, député ña sa topp mooy waa rassemblement national ñoom am nañ si lu tolloog téeméer ak fanweer ak ñaar jàpp téeméer ak juróom fukk ak ñaari euh, député bu ñu sukkandikoo nag si ba tey si média yu réew France yi nee nañ taux de participation bi maanaam doomu aadama yi nga xam ne génn nañu tey ji voté ji si ñaareelu tour élection législative yi bu ñu leen di natt dañuy toll si téeméer boo jël yu la benn nee nañ nag euh, lu ni mel record la maanaam gëj nañoo am taux de participation bu ni mel atum 1997 ba léegi mbokk ñu doon teewlu cant ak ngërëm ñeel na leen fii la ñu ndax képpee jotaayu xibaaru marax yi amoon naa mbégte lool doon jàkkaarloo ak yéen si kanam touti bu juróom-ñetti waxtu jotee di 20 heures sama naataangoo Kajoor Cissé dina fi teew yaatal xibaar yi si kàllaamay nasaraan ñu bàyyi leen ngeen woy ak programme seen chaîne de télévision 7TV